tey nag ñu ngi bëgg a waxtaanee ñaan yàlla. kii mooy Serigne Fall borom Kéemaan di ko xarañ ci wàllum ñaan yàlla seet nag daf ci spécialiste. waaw Serigne Fall nee na lépp looy dugg wala lépp loo bëgg a xam ci sa vie boo ko ak moom dina la seetal wax la leer nañ. seet moom li ñu jàkkaar loolu day day mel ne télé noonu noonu li ñuy seetee day mel ne télé nga xam ne bu bu bu jàkkaarloog moom li ñu war a gis lépp dañ koy gis képp koo xam ne daal boo ko gisee moom bu soob yàlla bu fekkee ne am na ñu daan seet loolu ñoo ci nekk suñu tànk lu demee ne wàllu ndoxum siti wala hémorroïde wala wàllu ngóora koo xam ne da nga néew kàttan moo xam noo mën néewee kàttan wala koo xam ne sa sàkkara day dem bay dellu di gàtt boo woyee suñu fàllu borom ci waan rek day daal di saafara ba ci wàllu càngat it na yuñ ci liggéey képp ko xam ne euh, yaa ngi yëngu te boo woowee suñu fàllu borom kéemaan soob yàlla dana la dimbali ba am dara yomb la. wàllu noob bi man li ma ci gën a garaaw ci wàllu noob mooy koo xam ne da ngay da ngay dem ba jàpp ne kii waru ko mën a takk wala lii warut a a nekk man yooyu sax laa gën soxla képp koo xam ne yaa ngi fu mu mën nekk moo xam mi ngi ci mi moo xam mi ngi bitim réew moo xam nit ku xonq la moo xam nit ku weex la boo ma wooyee moom bu ñu déggoo rek bala moo am semaine bu soobee yàlla li nga bëgg da koy daal di ndax yooyu moom dañ ko jàng ba xam ko xam koo xam ne moom daa jaaduwul képp koo xam ne da am jëkkër bëgg mu lay jox te joxu la bu soobee yàlla boo ñu wooyee danañ fexe ba mu ba mu lay jox. d'accord euh, Serigne lu Kéemaan fan la nekk. Serigne Fallou Kéemaan mi ngi Touba Guy Mbind waaw ñun ci Guy Mbind lañ bokk boo ñëwee ba weesu commune bi daal daal bala ngaa agsi usine glace rek boo wootee bu soobee yàlla dana dana la jël ci ndax sama kër ak kaw tali bi soriwul léeg-léeg danañ nekk Dakar numéro bi 77 274 29 48 wala 532 01 64 wala 687 76 687 88 34 wala 540 58 88 waaw numéro yooyu moom bu soobee yàlla bu ci nit woote bu soobee yàlla incha allah dana dana jot. bu maa la lan moo xew Merkiné léegi ni ma démb nelawut ndax papis dafa fanaanee yuuxu bu bari set wecc wecc wecc ñam daal démb ci guddi papis day tëdd naan mi ngi nii fii laa ko bàyyi woon ak ah fekk taamu fekk fekkaatuma ko fekk en tout cas man daal dama jaaxle quoi nee ma ba instant yi nii ma waxee yow Papis dalu dafa mel ni ku tàggali ko sagom daal. Papis Papis yow Papis dafa sikk de Papis day dox guddi benn xam nga boobu dafa guddi mën nga dajeeg lu nekk façon nit bu nekk mën nga dajeeg moom dafa bëgg ci kenn mu àddunaam yëpp. jigéen la nii laa koy def su ma ko jàppee war nga ko wax mu changé. wax nga dëgg pourtant loolu xalaat la de. sa bëgg jigéen te loolu baaxul. ndax papis moom heure bu ne lay lay dox moom moom bu nit ñi di tëdd moom mi ngi jug quatre heures trois heures heure bi nga xam ne moo gën a dansé. lay dox la papis di dox. donc man dafa dama jàpp ni dafa am lu mu gis tiit xam nga loolu des fois nit mën na dox ba si yàgg mu tiit am na loo xam ne tiitaange moo koy loolu laa la wax parce que kuy dox yenn heure mën nga da jóg jinne mën nga da jóg lu nekk pare dafa yaakaar moom jigéen bu mu gis rek si moom la gën a jég loolu baaxul. non non non attention nag baal sama waa ji nag de ah non baal waa ji baal sama waa ji ah moom moom jantal la nice quoi ah bàyyi ko mu dund dundam quoi d' accord. nga bàyyi jigéen ñi ndax bàyyi xale jigéen ñi. non xale jigéen ñi ci ren bokk ko bàyyi. mais mënoo jeexal ñëpp di nga xool aram xool faatu xool keneen ak keneen doo yem si kenn. en tout cas daal moment yi moom dama ma jaaxle trop trop trop trop ah, trop trop instant yi moom xam naa ni euh, affaire yi doy na waar quoi mais nag yàlla baax na. yàlla baax na euh, waaw yàlla baax na daal non bu tane moom dinaa wax ak moom bu tane dina wàññi dox dox guddi bi d'accord d'accord moom nekkuma en reste quoi jani yi def la sonal xamoto darah, dara dara dara dara loy def mënoo dara sa xel mi ma ngi ne la ma ngi ñew legi deug la de fi sama caabi fi ma ko tegal. ma nga fàtte sama xel mo ci génn. Ah, instant ma ngi am fa doon bëggoon dem mais xam tardé na ba sama xel ci naka Papis nag baa moo ngi tane bu baax dem nga fa. Papis wa wa mi mi mi tane nag mi tane mais demaguma fa. Ah, tane bu baax. tane na bu baax bi fay dem mu xamal ma ne daf ko yóbbu ci benn village xam ne daf ko wutal loolu moo tax mujj fàtte mais nag bu ñëwee incha allah dinaa ko fekk. macha ne ay xam ndax sët maam ci ay xam. man loolu laa yaakaar. Hmm. mais nag yàlla baax na daal. yàlla baax na yàlla loolu la waaye léegi jox ma sama caabi ma mën a dem bala ma bala ma naaj. teewoon naa ko sax. Euh, mais xam naa daal naa la bàyyi xam naa da ngaa def ci liggéey waaw naa la bàyyi. baax na ba ci kanam incha allah. bàyyi seen lépp kon yaa kaw fii di féexlu. lu yomb bëgg nga ko. gisuma rek kay nu may def. wax nga dëgg de sa mag day tourné rek damay xëy rek am si yu may nekk di lijjanti. Mm. mais tu sais l'autre fois mu la fàttee informé. Mm-hmm. dañoo maaraa laa demoon. pour àq ji naaraa xale bu jigéen ba boobu noonu yaa ma gën a xam mu bañ tudd turam sax mais xam lan moo fa dale mm. ku ma xaarul woon laa fa fekk mu yaaya. mais ku la bàyyi nga fay dem. tata laa fekk foofu. yow daa xamatuma lan laa def ma jaaxasoo mais xam nga rek samay fee ma ràcc sama waxtaan nag di neexal sama sëy waxtaan ak moom ba sama heure bi ma dem ñibbi. mais pour man nag Mara nga ma nga war a dem mais ta pas Nara Nara def la dara su def di am Mara moo def mais pas. Nara non non def defuma dara parce que Mara xam naa ko xol bi dafa rafet. comme gis da koy bëgg a dimbale jàppee ko comme boppam mais xale yu jigéen si boppam léegi ñoon ñooy dem di wari ju góor. xamoo de léegi dafa am audace ñëw kër Naara kër Maara mu ne foofu lay dëkk pour dëkk ak góor goo xam ne du alxames du dara mu dëkk ak moom. yow tu trouves ça normal nga may nga may wax naan da ngay jël défense su Naara. saytaane nga de. wax na yow dix mois ni nga def nii juste pour relaxer ni kese la. yow l'autre fois maa ngi la gis ci buntu kër bi yow benn xale bu góor yamal. waaw kooku sama xarit la. xarit xale yu góor noonu la ñuy def de li lay approché di lay wax ay affaire amitié. am li ñu bëgg am ci yow. baax na bëgg naa nga yem de gis nga li may dund ak Mara war la jàngal bu baax nga def attention ci koy dugg. non man nekkuma si yooyu. waaw baax na jàng lañ la sant di jàngal. d'accord waaw baax na sinon ko ak mama dañ ko dégg de. yaa ngi noonu ah, ma dem ba jëlaale fii air comme lu xew kon bi. <laughs> kon bi daa xaw a wér de. yaay mbaa yaa ngi jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax maa ngi sant yàlla baax alhamdulilah. alhamdulilah man nag yaay booba tey nag maa ngi fi bëgg a ñëw waaye xam nga rek yaay nekk ci activité yi. ah moo taxit nam naa la de moom gëj naa la. hôpital kër ga rek. yàlla baax na. mais yaa ngi jàmm bu baax baax. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax a baax. dafa am yaay lu ma la bëggoon a laaj. parce que bi nga géntee bi mu ñëwee naaraa nga ma wax may laaj nag euh, lan nga doon gént lan la lan la bay tudd naaraa. Ah, man de man sax la gën a jaaxal waaye xam naa dama yaakaar ne jaan ji daal moo ne ci sama xel mi xam naa loolu daal la war a doon rek waaye man moom man sax la gént gi gën a jaaxal wax dëgg yàlla waaye xam naa lu nekk ci sama xel mi rek moom dama ko bàyyi xel mu ëpp daal. loolu laa ak li ma fanaan ci kër gi. Mm-hmm. xam naa moo tax mu nekk sama xel. waaw d'accord mm-hmm. loolu lay doon rek. Euh, yaay. Mm-hmm. maa ngi lay ñaan nga génn sa xel ci jaan bi ndax jaan joo xam ne da koy dégg rek mosoo koo teg bët. loolu tamit du yoon nga ciy def sa xel. ndaxte dañuy jàngal naan nit wëtu jël dara rek def ko ci xelam bu ëpp. la loolu daf koy permettre fa mu toll mu di ko yëg. muy gént. gént gi nga gént nii. Mhm. sa xel mi nga def ci jaan jàpp naa ne moom moom moom rek la. moom dong lay doon kay. waaw waaw kon tey euh, dalal sa xel bu baax a baax baax te xam ne lépp yàllaa ko yor. dëgg la dégg nga incha jàpp naa ne daal li nga liggéey. Mhm. Euh, musiba du dal suñu kaw quoi. ah waaw waaw waaw. Ah, gis naa lu bari loo xam daal liggéey nga ko ñu ci teg suñu bët. loolu moom am waaw sa mm-hmm. naa ko moom. Mm-hmm. ma jéeg jéeg liggéey ñëw ma ci pindub teen ba di di di uh, di def yu kenn xamut damaa root. macha allah damaa rootal macha naa ci bu baax a baax yow moom. yaay day nekk ci jàmm rek ñu nekk ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax man kay yow xalaat. yow rek laay xalaat. maa ngi sant moom maa ngi sant. waaw du doy sant du doy. waaye ñaani du doy. Uh-huh, uh-huh. daal moom. Uh-huh. damay ñaan xam nga loolu moom njaboot yëpp moom la ñuy ñaan. mooy da ngay ñaan rek. sa doom lu na dal sa doom dal la. no yalla bu mu dara dal waaw waaw waaye bu ta ñakit na doon ci man rek. da dal yow yalla bu dara dara gàllankoor. eggale sa ndaw. inshallah allah sa ndaw. dara bañ naa gàllankoor lo daal la lay ñaanal. fuma toll sama kursi ki da say ma xey na la ci ñaanal ñaanal ci doom julli jullit yëpp. xamna xam ma bi tax dina ñew fi ak la. jërëjëf jërëjëf incha allah dara tardé wut. dara maa ngi daw yaay maa ngi daw. maa daw toog ba ci kanam nag. liggéey bi ma jàpp barki Serigne Saliou liggéey bi ma jàpp waaw soxna Saliou ba. tëdd naa rek mooy nelaw naa ko wax. kon nag dawal. ndax moo toog bi nelaw. liggéey moom moo jiitu lépp. waaw waaw waaw wala. jërëjëf sama xol seen. baax na yow delloo xamin rek. bàyyi xel li mu la wax dégg nga. bàyyi naa ko jaan ji waaw jaan bàyyi xel waaw. jaan bi de yaakaar naa. yoo xam fu mu jaane kat moom war naa yóbbu fit. yàlla yàlla mosal ci loo xam loo xamul. mère soxna moo ñu fi yebal kii sama xarit la biig ba léegi dafay waxtu rek waxtu rek waaw biig ba léegi noonu rek dafa jàppoo jaaxle nañ ci loolu nag yaayam mi ngi kër ga boobu ba léegi mu ngi dar bopp bi rek ndax jaaxle ndax benn doom rek la am muy moom doon ci ñu mën a jàppale rek booy ba nga gaaw jaaxle nañ ci lool lool lool lool lool ba fa jaaxle yam kilifa gi dara la sa xel ci kii gis nga kii dara jotu ko dafa tiit ci biir tiitaange googu moo yóbbu xel bi waaye boo demee nanga dalal sa xel waaye soo demee dinaa la jox sunguf na ci sangu diirum ñetti fan di ci diw su ko defee li yóbbu xel mi dana ko indiwaat fitam bii di tëf tëfi dina dal dina dellusiwaat ci sago bu xel mi dellusee na nga waxtaan ak moom lum gën a moy mën a moytu jigéen moo gën ndax yàlla da koo nattu mu mel ku bëgg jigen te lepp lo xamne jog na ngir diko fexel ci jigen la kay jaar na mo maytul jigen ñi bu baax baax dina jafé nak waye nang nga ci gor loo mën baax na. jërëjëf. so ni mhm. bu ngeen di dem la ngay wacc rek amna ben bu nek fofu sunguf si ci nek nang ci jël mom lay sango ñetti fan wéxal gi nak ñetti bakkan la neen mère soxna fu ko ren di teg rek sama gaañ dañ ko jël si. jërëjëf ni nga ko waxee nii dinañ ko defee noonu ndax am nañ ci yow yaakaar lool sax yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar jërëjëf. jërëjëf nuyu na ma merci. fois ci moom bu ma eggee désolé ko naa mais duma wax damay jëf elle permis Mara yëpp la Mara sama moomeel la duma liggéey ba heure bi <laughs> benn taxawaalu ka jóge fële bëgg ma yàqal au fait te bu ma seetaanee tuuti nag loolu dina am te Mara góor la Nara mel ni mu war a mel ñoom ñaar ñu bokk benn kër le fait que Mara di ko gis tous les jours. di ko am tous les jours ci ay côté Mara tàmm ko miin ko ba loolu tey mun na mun na jur mbëggeel en fait seen diggante te loolu mën na ko seetaan